alors ñu bëri une une certaine opinion dañu jàpp ne euh, le le report bon le report bëri na objectif mais l'un des objectifs du report euh, c'était peut-être au sein de l'Alliance pour la République de se donner l'opportunité de rebattre les cartes et de revoir la problématique du candidat de de, de Benno. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Pour que objet ñu ne report présidentiel bi mm -hmm. y en a y a une certaine opinion qui n'est pas convaincue euh, par, par par par par la noblesse des idées et euh, que vous avez mise en mise en avant ñoom dañoo jàpp ne le report est est est, est motivé euh, par des objectifs politiques parmi ses objectifs politiques mhm. euh, mooy bu ñu pousser élection bi au sein de l'Alliance pour la République mhm. euh, ñi nga xam ne d'accord ñu sur la candidature de Amadou Ba mhm. ñu mën a rebattre carte bi xam nga lu tax loolu du ma ci tontu hmm. man dafa lu ma dépassé rek dootuma ci wax comme ni ma la waxee euh, ñoo ñu koy wax dama leen bàyyee wax dëgg yàlla seen xalaat comme ni ma la ko waxee wax dëgg yàlla li ñu intéressé mooy ñu am élection yu daal. am na pose une question politique. tontuwuma ci parce que pour man amul njëriñ. lu tax amul njëriñ. parce que jàpp naa ne amul mais y a des remous dans votre camp nga ne amul njëriñ. waaw mais xam nga aussi. nga nekk porte parole de adjoint de l'APR nga ne amul njëriñ même nga élever la voix du tax ma tontu la ci. pour man amul njariñ du ma ci wax. man li ma amal njëriñ mooy on dans une coalition on est en train de travailler pour que le président de la République fasse des concertations ñu dem vers une élection boo xam ne élection bu dal la man ci loolu laa nekk. beneen wax mais mais mais vous êtes dans une coalition vous êtes vous un candidat qui devrait compétir normalement est-ce que dans cette coalition la en tant que responsable politique est-ce que vous travaillez à ce que votre candidat gagne ma wax naa ko barki dem ci télé hmm. waxaat naa ko ci télé mooy ñun bu fekkoon ne mën man ñi ma xam may mun a xam nañ ne li ma xalaat ak li ma gëm rek laay wax gis nga affaire parce que li nga bëgg a wax ay affaire Amadou Ba candidature am d'accord lépp loolu dépassé nañ ko parce que bu ñu ci d'accord woon tey du ma toogaat fii di wax donc loolu dépassé nañ ko aujourd'hui xam nga lan moo am solo comme ni ma la ko waxee man li ma intéressé mooy président de la république li nga xam ne dina ko def pour que concertation yi jur jàmm indi li nga xamante ni moom la yoon wax ñu dem vers des élections loolu nag bala ma ci wax élection yooyu issue bi noo ko bëggee. nga ne issue élection boobu noo ko bëggee. bu ñu xëyee Sénégal ñëpp liggéey. Sénégal ñëpp liggéey xam nga damay fàtte am na benn waay sax bu doon. kon yow nekkatoo partisan ku gañ a baax na. non mais jamais. moi je travaillerai à ce que Benno gagne kooku bul sonn. à ce que que notre candidat bu dee loolu nga bëgg a dégg bu dee dañu mu gagne les élections beneen bi mooy dafa am ku doon wax ne man li nga xam ne moom mooy suñu euh, élections yi Sénégal. su dee sax li waa ji doon wax ñu baal ma sax ci kàddu yi ku ñu mënti fal na réew mi nit ñi xëy liggéey. mais am nga préférence. non préférence su ma ko amuloon dinaa nekk président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bokk APR bokk Benno Bokk Yaakaar di euh, travailler pour ko ñu gagné ay élection loolu kenn waxaale ko je pense que loolu wax bu yàqu la.